yow am na fu ma la xàmmee de. waaw jàmbaar. ci loole maa ngi nii sant yàlla. tey dama mel dama ñëw nga gis la nga ànd ak sa doomu ndey. waaw gis nga. ñu ngi nii rek gannaaw bañ sant yàlla julli si bi maa ngi sant sama ñaari waajur sama tanta di ñaanal waa Sénégal yëpp jàmm waaw di wax rek ñoom dem rek delloo buum sa booy booy ga. tey lan ngay waaj. waaw lu bees sàq rek tey rek baa ngi ñëw a ngi ñëw bu bees sàq lañ andi mooy rek rek mu ngi ñëw tey dafay ñëwee ak doole barke Seydina Mohamed di ko ñaanal yàlla nag ndam sedd guy barke Alxuraan. tey lan nga waaw lu bees sax rek. tey bu nga ñëwee stade yéen ñëpp di ngeen xam ne moom moom yi andiwaat na lu bees ñun chaque jour rek lu gi dafa toll foo xamante ne nii si man man ak moom dañoo dépassé ay diggante mbër ak ay tëggkat nous sommes des frères à ce moment que nous sommes barke Seydina Mohamed ñaan yàlla rek yàlla may ñu ndam lu sedd guy ñu dem si jàmm ñu si jàmm waaw waaw xam nga tey nit ki booy dem guerre doo jël sa matériel yëpp lii day am loo xamante ne da nga bàyyi loolu tuuti la woon rek li des yëpp après stade lay xewee doo jël lépp yóbbu ko open presse ba. rendez si kanam tuuti nii rek waaw si kanam léegi. waaw waaw sant yàlla mais xam nga ne ku ku ku kuy bëre ay mbapat yoo xamante ne nii 128 mbër la façon mbër bu nekk di nga fa daj ak moom kooku benn mbër du la jaaxal barki Seera Fall ñaan yàlla yàlla may ñu ndam rek ñun rek ñu koy wax xamal la liñ naan doomu ñay kenn ko ñaanal rëy da nga koy ñaanal fan loolu rek lañ koy ñaanal ñun xam nañ bu baax ñun fi ñu combat bi toll moom la fa ko ëppal solo moom si boppam moo ñu gën a bëgg combat bi fuuf nañ dem rek grand Abdou Ngom dafa am wax du wax bu am solo mu ne Reug Reug warul mais dafa am loo xamante nii du jot wax dafa jooy ñu laaj ko lan ngay jooy mu ne dañ maa wax te warum leen wax mu jooyaat ñu laaj ko lan ngay jooy mu ne parce que dañ maa war a wax te waxuñ ma Abdou buñ ko waree wax rek dinañ ko wax après lay comprendre bu affaire yi jeexee maa leen ko naan nga ñëwaat taalal micro dinañ ko tontu tontu si kanam lay doon